sa réew mi nga ne yow na nga génn xaaji guddi di wër xale bu ndaw bi ci biir réew mi ba pare kenn wax ci réew mi ñu noot ñëpp ne rek kenn wax ñooy wax ba sàmba di ca dem ba ba fu mu yem neex wax mais audio yi fuité noo yi fuité nañu génne ñëpp audio yi dañoo yor ay audio nañu génne lépp am na yu jot a génn ne génne lépp complot dina am nañu ñëw biir palais de justice ñu jàkkaarloo bu ñu yoree seen i caméra ñu indi suñu caméra beneen yoon sax sabar lañ fiy tëgg policier yi bu leen ñu ko tere de sabar lañ fiy tëgg di ko defanteeg ñoom ñu sabar ko fi ñi kenn wax ku wax ñu saaga la ku wax ñu dal sa kaw pour lan ñoom ñoo moom nit ñi ñoo tey ñoo tey bu leen neexee def lu leen neex ñoo tey. madame s'il vous plaît euh, mën nga ñëwee ba a dee. c'est bon alors présenté wu naka waaw man la soxna Kumba Kokki membre CODAS. d'accord sa teewaay tey ànd ak Adji Sarr waaw sama teewaay tey ànd ak Adji Sarr juste rek ñëw di ko jàppale en tant que jigéen ñun waxuñu aji moo nekk ci dëgg waxuñu Sonko moo am dëgg mais ñun dañoo ñëw rek pour di ko jàppale en tant que jigéen loolu moom moo ñu tax a jóg muy rakk ci ñun di doom ci ñun loolu moom mooy suñu taxawaay tey fii alors li nga xam ne tolluwaay bi ni mu demee fan yi ay audio génn mu wax ci moom ak Mamour Diallo yéen ñi ngeen ko doon jàppale depuis le début ba léegi bi audio yi génnee la moo tax jéem leen a soppi euh, taxawaay bi ngeen amoon. waaw affaire audio yi moom comme ni ko ñëpp déggee rek noonu lañ ko déggee pour ñun xeexuñu pour Adji Sarr ay affaire audio ñun dañoo jàppale Adji Sarr ci wàllum viol bi mu wax ne Sonko moo ko violé ñun ci loolu lañ ko jàppale mais ñun kiiwuñu ay audio. waaw mais audio yi dafa bokk ci élément yi nga xam ne ci élément de preuve la ci wàllu viol boobu ngeen tuddoon waaw vraiment ojo yi moom ñun kiiwuñu ko moom waaw <laughs> dimbali leen nit ñi loolu du wax la mooy wax wa dimbali leen nit loolu du wax audio yeeg audio yi xale yi jigéen ñi ñu nekk di exploité sexuellement ci réew mi loolooy wax ji waaw kilifa gi nekk ci dëkk bi di def lu leen neex te dara lu leen fekk ci ay doomu jàmbur di doon Adji Sarr bu doonoon doomu kilifa li yëpp du ko ci fekk dégg nga da di doomu baadoola dari doomu baadoo la yéen sànq papam bi mu ñëwee gunge ko lu leen lu leen taxaw taxaw dem xool papam ay mbokkam taxaw ay bàjjanam ñëw taxaw dugg leen di biri tribunal ay mbokkam ñëpp a ngi ci biir dem fekk ko yéen waaye yéen yéen yéen seen yaram dawul yéen seen daram dara yaram dawul ñii dëkk ba ñu jógee ñii ngor gi ñu am ñii dignité bi ñu am kenn du kenn du wax yéen gisoo leen maire yi gisoo leen ay bàjjanam gisoo leen ay tantam gisoo leen papa mi nekk ci biir yéen gàcce war na leen rey ci réew mi dugg leen ci biir ngeen gisi ay mbokkam man waa dem leen gis rek ngeen dem ay gis gàcce war na rey ñii nekk fii ñi dañoo ñàkk jom ma ne na na ñëpp génnee audio audio ba audio audio yi dina taxarnaase ci réew mi na am ngeen ay audio yi ngeen denc yéen ñoom nañu ko génne ñoom du nee nag ñoom ñoo yor ay ojoo nañu génne lépp leer na lépp leer ñun loolu la ñu wax xanaa nag ku ne na ñëpp leer ñu tëgg sabar ñëpp seetaan ñu ñëpp dégg ñu nag xanaa bañu ñu ko la ah. man ay nit laay waxal waxuma ak moo la ni nga taxawee la ñu nekk seen ginnaaw